أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي عندك ينشي sarxu du'a min alkitaabi wa sunna sunu téere boobu nga xam ne moo nuy jàngal naka la nuy ñaanee sunu digganteeg sunu boroom xam ngeen ne ñoo ngi woon ci tomb bu njëkk bi mooy kii ñaan mu tàmbalee ci boppam doog a ñaanal keneen tey ñoo ngi jën an yatawassala ila allahi bi asmaihi alxusna wa sifatihi alula aw bi camalin salihin qaama bihi daaci nafsa aw bi ducaaci rajulin salih xayin xaadir mbokki julit yi sunu diina ji di islaam mu ngi nuy jàngal kii ñaan na jottaliku na ndimbandikoo ci ay turu yàlla booy ñaan benn aajo wërsëg nga bëgg jëlal yaa razaq xam-xam nga bëgg jëlal yaa alim bépp tur booy ñaan yàlla la nga bëgg dangay xool tur bi yàlla tuddee boppam ca jëf jooju nga ñaane ko ca mbir moomu dangaa bëgg a ubbeeku nga jël yaa fattaax dangaa bëgg a xereñ nga jël yaa xakiim tur yooyu dangaa bëgg a nekk muñkat nga jël yaa sabuur tur yooyu ngay jël jottaliku ci soo bëggee yërmande nga jël yaa arhamar rahimin dañu bëgg kii ñaan balaa muy tàllal yàlla loxo ne ko may ma na ko bàkk ci turam yooyu ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya salaam ya muhaymin ya aziz ya jabbar jaar yi demee noonu nga bàkk yàlla tagg ko kañ ko ci ay turam yooyu nga xam ne tur yu rafet yu mu tuddee boppam wala ay melokaan yu mu melal boppam wa sifaatihi al ula waaw yàlla subhanahu wa taala dafa am ay melokaanam alsabuur allatif alxakim alxabir loolu ay melokaan la ay tur yu ànd ak ay melokaan nga jël ci melokaanu yàlla yi la nga jël ci turam yi yoo xam ne da nga koy tàmbalee ba pare doog a ñaan yàlla aw bi amalin saalix wala jëf ju baax yow joo defoon yow mii ñaan jëf ju baax joo defoon nga ni yow yàlla man de bisab sàngam defoon naa nangam te yow dong yaa taxoon ma def ko ëy yàlla su fekkee yaa taxoon ñaan bi ma lay ñaan yàlla nag ma ko nangul comme xam ngeen ne na ñetti nit ñu àndoon dugg ca xuntuma ñooñu seeni jëf lañu jottaliku ba yàlla génne leen ci xuntuma ba xuntuma tëjoo seen kaw bu fekkoon ne dégg ngeen histoire ba kon ñetti mbir a ngi nii yoo xam ne dana tax yàlla nangu ñaan ba ca njëkk mooy wool yàlla ci ay turam ñaareel bi ci ay melokaanam ñetteel ci jëf ju baax yow miy ñaan jëf jënga jëfoon ngir yàlla e yow yàlla bisub sàngam gisoon naa ku tollu diggante gisoon naa ku sonn gisoon naa ku jaaxle ma dimbali ko te ba ma koy def yow yàlla yow rek yaa taxoon su fekkente ne nangul nga ma jëf jooju kon maa ngi lay ñaan ci mbir mi nga fajal ma ko wala beneen tamit bu ñuy nangoo ñaan aw bi duwaay rajulin saalix xayin xaadir nga dem ci waaju baax kuy dund ku teew nga ni ko dama am aajo ñaanal ma ci bi duwaai rajulin saalihin benn waaju baax nit ku baax nekk ab jullit di dund teew ne tung sa kanam nga dem ci moom ne ko dama am aajo sàngam nga bëgg ma bëgg nga ñaanal ma ci yàlla kon mbir yaa ngi noonu tur yàlla ay melokaanam jëf joo defoon yow mi ñaan wala nit koo xam ne dangaa dem ci moom muy ku baax kuy dund te teew mbir yi ab jullit mën na ci sukkandiku tàllal yàlla ay loxoom sunu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu daal di nangu ñaanam ki bind téere bi nee na yal na ko yàlla fay mu ne am na anwaau tawassul al masru xaalu du'a am na ay anam yu ñuy jokkoog yàlla yoo xam ne dañ koo yoonal jamono ji aji ñaan ji ñaan am na ay anamin yuñ ko sant na ñaane noonu jokkoog yàlla loolu yoo xam ne sharia moo ko sant na ñaane noonu nee na noonu anam woowu yoon woowu fa innaha arja fi qubuli du'a moom la ñu gën a yaakaar ne ab jullit bu fa jaaree yàlla subhaanahu wa taala daa di koy nangul ñaanam waaw yoon woowu ñu wax nga xam ne boroom xam-xam yi yal na leen yàlla fay ñoom ñoo ko utal ay charte utal ko ay yoon utal ko ay tëralin ñu ne yoon woowu moo gën a gaaw ci ab jullit sunu boroom subhaanahu wa taala nangu ñaanam wa tawassulu min alwasa min alwasila wa hiya alqurbatu alqurbatu wattaa mbokk yi kon ñaan googu nga xam ne ab jullit moom la war a ñaan sunu boroom subhaanahu wa ta'ala pour yàlla nangul ko ñaanam muy jaar ci yoon woowu yoon woowu nga xam ne mooy yoonu jokk pour jege ko moom yàlla ak topp ko boroom bi tabaraka wa ta'ala mu ne ittaqu llaha wabtagu ilayhi alwasila ragal leen yàlla ngeen sàkku ci moom ay anam yu ngeen jokkoog moom ragal leen yàlla ittaqullah na ngeen ragal yàlla waaye ngeen jaar ci ay yoon ay anam yoo xam ne mooy tax ngeen jokkoog moom moom yàlla tabaraka wa taala gis nga anam yooyu nag bi ci njëkk mooy liñ waxoon sànq walillahi al asmaul xusna fad'uuhu biha borom bi tabaraka wa taala nee na man yàlla dama am ay tur yu rafet kon su ngeen may ñaan ñaan leen ma ci tur yooyu walillaahi ñeel na yàlla al asma ay tur al xusna yu rafet nga lawaay fad'uuhu biha woowe leen ko ñaane leen ko ci tur yooyu gis nga moo tax mu ne kii ñaan na jiital benn tur ci tur yàlla yu rafet yooyu ak a baax nag mu jokk ak tur bi nga xam ne moom loolu la bëgg dafa bëgg yërmande mu daal di woo yaa gafuur igfir lii dafa bëgg am alal mu ne yaa ganiyu agnii nii dafa bëgg yërmande mu ne yaa arhamar rahimin irham nii gis nga yaa razaq arziqni yaa tawaab aqbal tawbati gis nga saa yoo bëggee dara la nga bëgg fexeel ba xam tur ba ko yàlla tuddee boppam nga jël tur boobu tëgg ko ñaan ko ci boo bëggee njëggal nga ne ko yow mii borom jéggal jéggal ma boo bëggee am koom nga ne ko yow mii oomal oomalal ma soo bëggee yërmande nga ni ko yow mii yërëmaate yërëm ma nga jokk ci tur yooyu yow yàlla wërsëgal ma ah urzuq nii yaa xayru raziqin irham nii yaa arhamar rahimin wa mislu zal jalali wal ikram comme tur yu demee noonu lay sharia tëral ab jullit su bëggee dara ci yàlla mu laqatu ci tur yooyu ñaan yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na alizu bi yaa zal jalali wal ikram ngalawaay bu ngeen di ñaan na ngeen bëri lu ngeen di wax ne yaa zal jalali wal ikram lii bëri leen lu ngeen koy tudd ci seeni ñaan yaa zal jalali wal ikram lii làmmiñ bu ko taqoo ñaan gooy ñaan dugal ko ci dana néew lool lu yàlla dul nangu sa ñaan mu ne wa maana aliddu mooy alzimuhu saxal leen ko seen làmmiñ wasbutu alayhi ngeen sax ci wa aksiru min qawlihi na ngeen bëri lu ngeen koy wax wa talaffuzu bihi fi du'aikum na ngeen ko bëri lu ngeen koy répété ci seeni làmmiñ yaa dhal jalali wal ikram yaa xayu yaa qayuum yaa dhal jalali wal ikram baat yi ku koy taqoo ci sa làmmiñ booy ñaan ah mbokk yi allah xam de waaye dana néew trop lu yàlla dul nangu sa ñaan yaa xayu yaa qayuum yaa dhal jalali wal ikram nga ñaan li ngay ñaan ba pare nga tëjawaat ko yonent bi nee na sax leen ci taqoo leen ko bëri leen lu ngeen ko wax ci seeni ñaan beneen bi mooy an yatawassala bi ismin dool ala maani kathira beneen mooy nga taqoo tamit tur boo xam ne tur boobu dafa am ay maanaa yu bëri mislu rabb comme ni mu amee subhanaka rabbana subhanaka faqina adhab annar baat yooyu allahumma bi ilmika alghaybi wa qudratika ala alxalqi ahyi ahyini zaaru ñaan yi ab jullit di ko bëril ci làmmiñam di ko wax lu bare bare bare bari assamad almajid alazim baat yi bëgg nañ ab jullit taqoo ko ci làmmiñam di ko wax lu bare bare bare bare bare allahumma inni a'udhu bi izzatika la ilaha illa anta an tudillani yow yàlla maa ngi laqatu ci sa kattan yow buur bi nga xam ne yow dong yow la maa ngi làqatu ci yow ba ma bañ a sànku façon jottaliku yi façon ñaan yi ab jullit bu koy taqawoo lu bare bare bare bari ci dundam sunu boroom jalla jalaaluhu dina nangu ñaanam anam usaani ñaareelu anam ci jéem a jaar ci ay yoon yoo xam ne soo ci jaaree yàlla nangu sa ñaan mooy atawassulu bi amali saalih qaama bihi daa'i nafsahu nit koo xam ne dafa jëfoon jëf ju baax ba mu demee ba aajowoo yàlla bëgg koo ñaan mu laqatu ci jëf jooju loolu bëri na ci ay façon yu boroom xam-xam yi joxe yu wane ne ab jullit mën naa jaar ci anam yooyu comme mu wax yow yàlla gëm gi ma la gëm bëgg bi ma la bëgg topp gi ma topp sa yonent waaye yàlla jéggal ma ndax loolu allahumma yow yàlla bi imaani bi ka ci gëm gi ma la gëm yow sama borom aw mahabbati laka wala bëgg bi ma la bëgg yow sama borom aw bi tibaa'i li rasulik wala topp bi ma topp sa yonent ay waay yàlla ñetti mbir yi waay waay waay waay an taxfir li jéggal ma waay ndeysaan wala ñaan bu réy bii rek yàlla gëm gi ma la gëm bëgg bi ma la bëgg ndigal gi ma la déggal ba topp sab yonent e waa yàlla yaa maa ngi sàkku ci yow nga jéggal ma kon mbir yaa ngoog ba ca tegu mooy jëf ju baax joo xam ne mu ngi woon sa xol nga làqatu ci ñaan yàlla ngir yàlla subhanahu wa taala jéggal la wala gaa yu baax yoo xam ne ñoom ñooy ñaanal allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana zunubana wa qina adhab annar jàngal naa leen ko léegi wax naa leen qissatu ashaabul ghoor histoire waa xuntuma su ngeen ko xamee alhamdulillah bu ngeen ko xamul insha allah waa xuntuma dars bii di ñëw ñu defal leen ko pour ngeen xam nit dana def jëf ju baax mu làqatu ci jëf ju baax ja mu ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla daal di koy may ci jëf jooju kon mbokki julli di doomi ndey incha allah ngi yemale fi tomb bi di xaar laaj yi di jégglu sunu borom njuumte yi di leen ziyaara di leen baalu ak asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu